il faut que nit ñi jàpp ni kenn ku ci nekk war ngaa mën a dimbali sa morom dëkk bi du concours ndimbal entre ñun du tax nit ki wàññeeku du tax nit ki dellu ginnaaw maa ngi leen nag léegi ne leen comme loolu ngeen bëgg a faj boo leen koy faj il faut ñu jaar si ay canevas canevas bi ci jëkk jot comme ñoom ay xale lañu xale yi ni ñu gëm seen bopp ba pare parce que mënoo ja ànd ak koo xam ni que moom li ngay defal bu fekkee mot na day yaakaar war a génn réew mi pour réussir. parce que ñun fii dañu toog réussir kon yaakaar nañu keneen ku fi toog it war nga mën a réussir donc loolu moo tax ñu wax xale yi nañu toog d'abord nañu gëm seen bopp ba pare bu loolu weesoo ñu wax ne que volonté bi pour wane ne que bëgg nañu affaire bi faju ma ne leen yéen entreprise yi nga xam ne yéen a bokk RNES yëpp kenn ku ci nekk na sponsorisé ñaari xale jël ñaari xale yoo xam ne chômeur lañu xamuñu dara munuñu dara nga sponsorisé leen pour que ñu réussir dans la vie man noonu lay def man damay sponsoriser nit damay gis nit ko am projet ma xam ne projet bi yaa moom xam ni ngay def ma accompagner la ci projet bi loolu mooy sponsoriser ma sponsoriser la ba nga réussir ñi ma ko defal am na ci ñoo xam ne tey jii ñoom moom xaalis man te maa leen teg kii yoon pour ñu liggéey mais heure bi ma wax ak yéen nii ñoom moo alal fuuf mais fierté la pour man parce que ànd naa ak ñoom encadré leen ba ñu réussir donc xale yi loolu laa bëgg ñëwal ko xale yi. gëm sa bopp bi tamit day tax ni que bul bañ benn métier métier bu ñu la jox rek war nga ko mën a liggéey loolu moo tax ma joxe exemple xale yi bale nekk ci mbedd bi ndax bañ koy def ay 1980 86 87 bale si mbedd bi nit ñi dañ daan làqatu ci man la làqatu bi jeexee man maa daan jiite xale yi sol sama yére ànd ak ñoom di bale nit ñi xam ni que bale Dakar yëpp ku ci mës di def set man ngay woo man maa daan wër di dem quartier par quartier di def set boo xam ne kenn sant ma dama ñëw ci yi bi rek woo xale yi ci koñ bi mujj gi xale yi di ma woo pour ma ñëw di leen jàppale ci seen set setal donc loolu moo tax ma ne métier la boo xam ni dañ ko formaté ba xëy suba métier bi baax xale yi nekk si donc loolu dafa nekk lu am euh, ndaje mi nag li ko wunnu mooy ñëw ñu waxtaan ci li xew ci àdduna bi parce que dañ naan Sénégal rek ma ndawi Afrique yëpp la ñooy dem di jël gaal yi di dox pour dem Europe di mu jaral leen lu ne ñu ne loolu nag ku nekk ngi wax ku nekk ngi naan clandestine immigration na mais ba léegi solution génn ko ñun dañu woote pour génnee solution te am nañ solution solution bi mooy ñu jàngal xale yi liggéey ñu jox leen liggéey parce que boo jàngalee nii liggéey par da nga koy utal mais du rek formé naa ko après bàyyi ko mu dem outil marché yombut a am mais da koy gunge mu liggéey mais loolu état tam am na ci wàll duñ ko xaar nag ñun solution boobu lañu ut ñun dañoo am ñun dañuy indi solution ñëwuñu rek pour woo média bi ne leen ñëw leen ñu wax émigration non non non dañ ñu nañu ñëw ñu indi solution teg ko parce que ñun dañoo raam jóg ànd ak suñu ay kilifa ñu jàngal ñu dañuy jàngal keneen ñu loolu moo ñu yëkkati en réalité l'immigration est un phénomène assez naturel hein? donc euh, aussi bien pour les êtres vivants que les euh, pour tous les êtres vivants je dois dire hein? les animaux migrent de tout le temps hein? les oiseaux migrent Beaucoup d'animaux font des migrations, mais les êtres humains aussi ont toujours fait de l'immigration. Je pense que l'immigration existe avant la naissance des moyens de locomotion, c'est-à-dire avant la naissance de, de l'automobile, avant la naissance du train et aujourd'hui même de l'avion, les gens ont toujours émigré. Il a toujours été quelque chose que des personnes quittent un endroit pour aller vers un autre endroit. parce que pendant de longs mois, de longues semaines, des personnes empruntent des, euh, des itinéraires assez, assez périlleux et perdent leur vie. Et ça, c'est véritablement regrettable. Je dis même que c'est un scandale de voir quand même des êtres humains perdre la vie parce qu'ils cherchent quand même des lendemains meilleurs. Mais je pense personnellement, et je pense que c'est le thème de la discussion d'autre jour, que nous, nous nous avons trois problématiques. Alors la première problématique, c'est au niveau de l'information. Nous n'avons pas la bonne information. La deuxième problématique, c'est la, la, problématique de la formation. Nous n'avons pas la bonne formation. Et la troisième problématique, c'est celle de l'orientation. Nous n'avons pas la bonne orientation. Je vais m'expliquer. L'information, en réalité, aujourd'hui, ñëpp dañoo yaakaar ne tukki mooy tekki mais tukki ça ne va pas dire tekki ñëpp dañoo yaakaar ne toog mooy torox toon ça ne va pas dire torox je pense que euh, c'est l'honorable député qui le disait tout à l'heure, qu'il y a énormément de personnes qui sont restées sur place au Sénégal, qui n'ont jamais quitté ce pays, mais qui ont des empires. Il y en a d'autres qui vivent en Europe ou en Amérique, mais aujourd'hui, donc tout pas dire teki. Et l'information, la mauvaise information que nous avons, on a fait croire à nos jeunes que l'Europe c'est l'Eldorado. Je regrette, l'Europe n'est plus l'Eldorado. En réalité, aujourd'hui, je pense personnellement que l'Afrique offre plus d'opportunités que n'importe quel autre continent dans ce monde. Mais cette information, on ne l'a pas. Je donne, exemple, un, euh, euh, je, je donne un exemple. D'ici l'année prochaine ou dans deux ans, on va commencer à être producteur de pétrole et de gaz. Mais pourquoi on ne fait pas croire à des jeunes que devenir un pays producteur de pétrole et de gaz, cela veut dire tout simplement qu'on va avoir plus de ressources le monde. tout le monde est concerné. Ce n'est pas uniquement le gouvernement. Tout le monde est concerné. Cette question, toi, moi, nous tous, nous sommes concernés. gis nga espoir fu mu amul rek dara amu fa yaakaar mooy dox loo àddina il faut faire espérer les jeunes il faut leur dire que le pays va bien il faut leur dire que d'ici quelques années on va produire du pétrole et du gaz et on va avoir de l'argent parce qu'on s'est dit pour pouvoir véritablement aujourd'hui capter la jeunesse il faudrait renforcer les réseaux les réseaux de formation euh, après leur avoir trouvé une formation adéquate, il faudra tout faire pour qu'ils puissent avoir une insertion au niveau véritablement du secteur qui les intéresse. Mais pour les insérer aussi, il faudrait d'abord penser à l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat est aujourd'hui une solution, parce que ça permet à tout un chacun véritablement de se frayer son propre chemin. Et à travers cela aussi, on a proposé de lancer un appel à nos frères qui sont à l'étranger, pour qu'ils captent de l'expérience, qu'ils captent des moyens pour venir aussi s'investir. À travers le retour aussi, on a voulu véritablement appeler les jeunes à un retour vers l'agriculture, à un retour vers la pêche, à un retour vers les secteurs qui sont aujourd'hui pour les Sénégalais et par les Sénégalais. C'est possible de rester au pays et de gagner sa vie. Pendant longtemps, euh, nous avons remarqué qu'on a parlé de la jeunesse. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il faut parler aux jeunes. On a longuement parlé des jeunes, mais il faut appeler les jeunes et parler avec eux. C'est à travers donc le message que le parrain a véritablement voulu à travers le message que président a voulu transmettre avec les panélistes, qu'on sache, qu'on saura véritablement qu'il est possible de faire ensemble des choses, qu'il est possible, après avoir demandé aux jeunes de rester chez eux, de leur trouver un chemin. C'est pourquoi nous acceptons vraiment de tout cœur l'appel du parrain en sponsorisant des jeunes. Je pense que ça, c'est une stratégie. Là, je pense qu'il a lancé aujourd'hui un grand concept qu'il faudrait que tous les entrepreneurs, au-delà même, et en dehors du RENES, que tous les entrepreneurs s'approprient de cette stratégie parce que véritablement, ça permet à chacun de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice.